ñëw euh, d'abord avant may sore remercier la presse parce que ñun dañoo gëm ne xeex bi ñu xeex ba yegg fi ñu yegg bu ñu si àndul woon ak euh, presque bi ñoom aussi ñu jàpp si de la manière la plus mën na am ba danañu ko donc gagné mais peut-être euh, dana gën a métti mais euh, population yi nekk si seen kër yi di leen di yóbbul information yi ba ñu jot ko ñu nekk seen néeg yi di leen di yóbbul information ba ñu jot ko. loolu collaboration entre ministère la santé dispositif sanitaire bi ak la presse sénégalaise donc loolu laa bëggoon commencer d'abord bu ma waxee loolu ba pare ma ne damaa ñëw tey fii si euh, Touba pour euh, xool déjà li ñu fi teg pour préparer màggal bi si wàllu wér-gu-yaram est-ce que lépp mat na euh, ñëw naa xool naa def naa le tour wax dëgg yàlla am naa donc euh, xel bu dal que ne danañu dem si màggal bi si environnement au contexte pandémie si ni mu gën a rafet parce que déjà njàngal mu njëkk bi mooy bu ma xalif bi recevoir bu tedd gi bu mu génnee déjà laa ne wax dëgg yàlla joxe na leçon Sénégal parce que na génnee ak respect mesure barrière na mu ko defee nekk na lu rafet noo xamante ne si ñëpp royee rek incha allah danañu dem si màggal bi dans les meilleures conditions mais aussi profité naa si occasion bi pour euh, dem seeti hôpital bu bees bi xamante ne mois de mars incha allah danañu ko livré mais aussi xool naa ndax euh, personnel bi mat na am na 5000 agents yoo xamante ne dañ leen euh, donc mobiliser pour que donc ñu jàppale ñu si màggal bi ba kenn du am problème boo xamante ne am nga ko si wàllu santé action sociale te duñ la mën a taxaw service d'hygiène tam xam ngeen ne président de la daf leen jox ay moyens yu bees yu moderne yoo xamante ne mi ngi fi yooyu yëpp déployé nañ koo si màggal bi sans compter maintenant lépp luñ si def si wàllu garab si wàllu ambulance si wàllu beneen xeetu jumtukaay yoo xamante ne dañ koy laaj pour que pèlerins yi nekk dans les meilleures conditions li ma mën a wax daal mooy que ne alhamdulilah te léegi ma porte parole recevoir itam génn na si waxtaan bi. ne ñun dañoo taxaw pour gunge pèlerin les meilleures conditions d'hygiène maa ngi leen di